waaw euh, ñu ngi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewaay donc euh, tey suñu teewaay fii maa ngi tudd Pape Abdoulaye Touré bokk ci mouvement Sénégal notre priorité suñu teewaay fii mooy ñëw gunge ci këru dëgg ki nga xamante ni ñun grand frère lañ ko jàppee koo xamante ne ñoo bokk ndey baay ndax amoon nañ ay relation yu particulière yoo xamante ne jotoon nañ ko sekk donc euh, am tiis nag.

donc ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla yërëm ko jéggal ko xaaree ko aljana di masaw comme ni nga koy waxee rek di leen masaw yéen ñëpp ah ñun sénégalais yëpp ñu ngi leen di masaw ci mbir mi donc di ñaan tamit taxaw ci fameem taxawu ci soxna su mu fi bàyyi taxawu ci ay wéyjuram taxawu ci ay mag ak ay rakkam yi nga xamante ne bàyyi na leen fi donc am nañu yaakaar ci moom di ñaan aussi également yàlla bu ko cat jiitu ci fu mu jëm Euh, di ko ñaanal rek di ñaan aussi ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre ñu ñaanal leen parce que nit moom su génnee àdduna ñaan lay gën a soxla donc ñu ngi ñaan ci képp ku ko mën soo jullee ba noppi nga def faatiha ak fukki lixlaas ak benn ñaanal ko moom ñaanal yeneen ñaari garde yi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan waaye aussi également ñaanal mbooleem jullit bi nga xamante ne génn na àdduna muy suñu mbokk muy mbokki ñeneen ak ñeneen te comme te kulu muslim akul muslim julit julitay mbokam donc nañu ñaanal suñu mbokk julit yépp yalla yërem leen jéggal leen xaare leen aljana li metti na mais diñ koy tek ci loxo yalla parce que kullu nafsin sayiqatil maut bakkan bu ñam dundu di nga ñam dé donc dé tamit dafa euh, dé bu bett la motax mu choqué franchement metti torop waye ñi ngi massaw ñëpp waaw di massaw ñëpp li mo nekkon kaddu yuñ fi bëggono jibal di massaw ñëpp encore une fois jërëngën jëf jërëngën jëf